dangeen cee bokk dangeen a ànd ak ci xeex mi coono bi métti na mais Sénégal yëpp maa ngi leen di gërëm bitum réew yëpp maa ngi leen di gërëm Afrique yëpp maa ngi leen di gërëm ndax gàcce ngaalaama suñu coono bi yëpp dañ koo gis dañ cee bokk ñu koy xeex ñun nag suñu suuf rek la ñu soxla suñu bëggoon suñu suuf ñu soxla እንዳለ ጅሱ ጅሱ ብለኝ ሙለኛ ካደር ሙለኛ ካደር ኛር አተገኒ በይሱፍ ኛር አተገኒ በይሱፍ ሱፍ ላገ ይቦይ ጎጉ ኛር አት ምን ወሮን አንፎ ወየብ ማከዳል ያክናፈ ዳፎ ላይ ወሮን በይ ቡማና ዱና mais ñun ci suñu bopp dara la ñu amul de ren bu leen xiif bi ñaan ren de ndax foofu la ñu waroon ameel dugub foofu lañu waroon am jarda foofu lañu waroon am ñebe foofu lañu waroon am bilaab mais dara lañu ko amul tey joxuñu suñu suuf Babacar ngay liggéey toolam di jiriñu ñun suñu bopp suñu tool yi booy te moom ci boppam moo doon ñëw di ñaan suñu tool ma bañ mu bañ ba bañ bay jéem dégg naaj lu mu di ma jox deux millions wala am njëkk a njëkk góor a mën a amal deux millions. mu ne ko te demoon deux millions bi yóbbu ko Carrefour Colobane yóbbu ko ñu suuf yi Babacar joxal ñu suñu suuf suñu suuf suuf ñu laaj suuf la jox jox ñu suuf tey jox ñu suuf la ñaan de Macky Sall nag lépp lépp nag lu jiin njaak te mooy njaak waaw Macky Sall mooy njaak ku jiin njaak mooy njaak diggante tukulur ak séeréer kooku mu woon muk muk muk muk tukulóor maa ne def séeréer lu ñaaw mel ni teye suufam mosuma ko gis ñaaw tee bu toll nii mosuma ko gis waaw jox mi suñu suuf man daa su ma sañoon balaa ñuy jébbi jam ñaajo sax lu wax ñu seen suuf waaw jox leen suñu suuf jox leen suñu